murit saxaar a ngi nii seetal mbiram te xalam ñun ñaa ngi daw di ca jëm ak seeni yëf di gërëm murit saxaar a ngi nii seetal mbiram te xalam ñun ñaa ngi daw di ca jëm ak seeni yëf di gërëm koo gis da koy bëgg a kay teeroo ka sànni yëfam te xel wa muy dawat ak xel waa ko may la mu am te doonte daa tëdd fi gaaram du yóbbu du dem kenn dootu gis ku ca dem kenn dootu gis lu mu am dawal ku daw am yëbul bëgg yëf te taxaw taxaw te bëgg yëf ak ñaawal sa bopp fi yam foo yam nu yem fa te boo fay weesu jëm ca kanam nga ji ñu nangul la faa weesul nga jëm ca kanam ku bëgg ndollante am na xel mu jub te rafet day daal di yokki xelam moom it ñu yokki mooyam ku bëgg ndollante am na xel mu jub te rafet day daal di yokki xelam moom it ñu yokki mayam xëy tëdd tooke la ngir day xañ ko am la mu am tey dox diggante ku ñàkku nga am di yokki mooyam xëy tëdd baaxul ci ndaw baaxul ci mel na magit baaxul ci ab sëriñ it baaxul ci ab muritam farlul ko am taxa sàggan am xelam rafetut ku daw ba jot lëf bu daagoo loolu rëcc ko dem ab dag dafay farlu buuram raw ko fa pati far bu farlu wàccul ka jiitoo kay du wacc ñoñam ah sana laaw ci réer ak ci képp ku naa sëriñ bi doy nanu kay jaamoo te doo ko ko gëm doyloo sëriñ bi walis jaamu yàlla te doo doyloo njëlam ba wutoo njël bokkul ak lu ñu xam doyloo sëriñ bi wala jaamu yàlla te doo doyloo njëleem ba wutoo njël bokkul ak lu ñu xam sëriñ bi day raasa kay wut lëf ci nun nun itam nuy raasa kay wut ci moom it lëf na am te nu am mboolem li muy raasa kay wut lépp yàlla na ko am nu am li nuy raasa kay wut lépp bokku ngërëm wax jee kamat te wax jii doy na jépp xalam ku yor xelam na xalam am xel du faj lu xalam wax jee kamat te wax jii doy na jépp xalam ku yor xelam na xalam am xel du faj lu xalam nan jéem a sant gërëm duurub aras ki nu jox xéewal yu toll na suufam yi ñu gis ne xasar nan jéem a sant gërëm buurub aras ki nu jox xéewal yu toll na suufam si ñu gis ne xasar moo jàpp gëm jox nu fab yonneen ba jagle nu fab sëriñ bi yakkal nu yakkam bee ka neex a kañor fu nekk teg na fa yekku mbég bu ñëpp di bég ba noppi jéppal nu boppam ñëpp ñeenu ba mel fu nekk teg na fa yekku mbég bu ñëpp di bég ba noppi jéppal nu boppam ñépp ñeenu bu mer sëriñ bi nun ñee ko séddoo nun la yàlla faral yónneen ba ak saaba yépp ak mbër yi nun la nu far noo jeele ab jëll bépp jëll jëll nu ndax nun mbër ma yor asamaaw ak suufa yoru sunu mbër noo jeele ab jëll nun bépp jëll jëll nu ndax nun mbër ma yor asamaaw ak suufa yoru sunu mbir noo jeele ab jëll bépp jëll jëll nu ndax nun mbër ma yor asamaaw ak suufa yoru sunu mbir xar baaxi ndam noo ko am ngir nun danoo bërewul te yéen ndamal bëri biir ak biti ñeewu nu mbër nu ëpp ndam gaaya daa bàkkoo kala gëkka tëb ci biiri géewa ka sukkantee ka soo bu ci lor noo jël ndamal gaaya ub noo jël ndamal ñe ko ub nu ëpp nit ñépp muur ak ndam ku baaxa nu yor ku baaxa yor sunu mbir moo nuy musal ci lu bon moo nuy mayit bépp yiw rabboo ki cant nu wër ku baaxa tax ji sunuy karkar te gis njëriñal kër kër gërëm koo nu war ak sax ci jaamu gu wér ku baax a tax ñàkk nu xam-xam te am njëriñal xam-xam bu wér kaare nun noo am lu gën ame ndar noo lamb daj bamba daj yonneen ba lambati daj burub aras bënn géejog barke feesali xur noo lamb daj bamba daj yonneen ba lambati daj burub aras bënn géejog barke feesali xur yàlla gërëm yàlla ak yonneen ba sant sëriñ tuuba gërëm ko te doy loo faw lii ñu ma may ku am yëfam fab te lëf jébbal la sant ca war ak doy lu moo rëy ku am ak doy lu am nga lu rëy te képp képp ku ñàkkook doy lu ñàkk lu rëy ku ñàkk a sant lu tuutit ñàkk a sant lu rëy xamay jurug cant faw ak doy lu yàlla nañu xam réeréy jurug tawat ak bon faw yàlla na nu mooy ak réeré bon ku ko def ak may du rëy fi bëtam ku yewoon ak ak mayam day rëy fi moom a ko gën tegal sa bët ca ña seg jur app jur ga ñu am kon jàmm am nga gërëm santante am nga na cey bul teg sa bët ca ña seenu jur labal la nga am ci jur xi rek gay na ñooyam koo ci gis dana rëy àdduna kenn matu ceeñee ngir alal sa mu am ña dëddu àddina wéy ñoo mat di ñee akaroy àdduna kenn matu ceeñee koo ci gis lu mu am lu rëy rëyéen xaaju koo doy ñëpp a bokku ne woy ndaw ñëpp a bokku ne woy mag ñëpp a bokku ne woy ku dee fi ñee ma nga naa fis ruq wuy sama ndey kuy moslu faawu mu xul kay mosle faawu mu xul àdduna moo di kërug ay kenn ñàkku ci ay ñëpp yàlla nu doyloo yàlla am lu nu doy nu dëkk ci cant doyloo faawu lii ñu nu may nun ñëpp yàlla nu doyloo yàlla am lu nu doy nu dëkk ci kent doyloo faw lii ñu nu may waxal ne am rek mbaa may dox ba dee fi barab boo xam ne waaju ma gis day xam ne yàquma ngor wayal te wéy te amug yéeg tabbi tabbi bu wér ak gor dafay jekki mbaa muy tabbi tabbi bu wér laa biire naa la te moo gën man mu lay mayi fos ak man mu lay mayi xar ak man mu lay mayi bëy lii moo di yoonu ku daawut barke maa la ko wax ngir maa ngi soo bul te wéy bul geesu waa jëfa kër watul ma foo jëm tàyyeel ak rëy lu kem sa kattan ku bëgg jiituy moroomam day woyof te sawar soril ma jag-jaglu ak xay-xaylu ak wari fosu waaxul te romb fi kuy jagloo ko wut lu mu war ku jóg di dox ak ka jóg war naari góor a fi yam ku nekk day dee te kuy dee dal di fàtte nga war ku dem fa sëg yi di war way dee ya doo fa ku dem fa sëg yi di wër way dee ya doo fa xàmmee ku daan dox ak kafa daa war naari góor a ki par kuut ngërëm la na doyloo boppam ak sëriñam bu mu faale kay wax ne moo jaa boobu dof ku ko jur sagar yu bon yu tilim des fois na gis ku ko sol te mujj dee fi ko gis muy sol yu laa ba kabar njortu lu taaru lu nit am njortu laa ko ko may woonaa te xek ku fi mel nii tey liggéey ka xër jaase ngi kuy xeexe kiy noonam na ak si te fab te rey wasal yot nu ay xeeje kënoo ki ko bar na dàq noonam ya ba muy deete kat bu mu daw nay jam gannaaw ak kanam bay mel ne gaynde gu mer na dàqi noonam ya ba muy deete kat bu mu daw nay dem gannaaw ak kanam bay mel ne gaynde gu mer yow yàlla woon nu sëriñ Tuubaa mu tedd ma tey te may nu cag leer ak ku jeex ak mbég ak lu nu saf ngir yàlla wan nu ko wan guy tax nu sant mu béeg nu bokk sant ka béeg yonnen ba boole nu yor ngir yàlla wan nu ko wan guy tax nu sant mu béeg nu bokk sant ka béeg yonnen ba boole nu yor adduna ñàkk na waajoo xam ne dootu fi am te waaju mel ne ke moomin musta am fa mu jëm adduna ñàkk na waajoo xam ne dootu fi am te waaju mel ne ke moomin muslu am fa mu jëm ku boole woon addunaak alaxiraak ña ca ne nga teg ko fii peese leen giñ naa ne wat gi du am ku boole woon àdduna ak alaaxira ak la ca ne nga boole leen peese leen giñ naa ne wat gu du am la yàlla bindan ci dunyaa luy wax ak lu waxul noo bokk yem ci mbiram ak gaa yu bég ya mu jëm yaa jar di bind ka woy yaa jar di wax ba ñu naa dof baa ngi yow sab dofit fooje du ñàkk doom baddil nu as muntu yaa baddil gu koy masa am as muntu sax ba ñu naa waajee ka baax ka am yàlla ak mboolem gërëm yaa raw ña daw barawan yàlla nu tabbi ci yow sun mboole yaay ka fi xam amiina ak kuy murit saw tagg mut la soril koo xam ne jàpp na say wax kooko doy ña ko xam mboolem ku jekk ak ku jekkul ñëpp a yem ci sa mbir nan topp rek sa mbir tey sant rek ka gëm tey toppatoo sa ndigal tey daw lu bon la nga bañ tey jéem a sax ci ndigal nun ñëpp yow la nu am koo xam ne am na la war naa dëddu àdduna ji koo xam ne am na la war naa dëddu àdduna bas te dëddu seytaane ak bànneexam ak bakkanam ñii ñeent ñooy nooni mboolem jaamu yàlla yi kat yii ñeent ñooy nooni mboolem jaami yàlla yi kat notal nu leen mbàkke yaaman ñépp fopp ndaxam ñii ñeent ñooy nooni mboolem jaamu yàlla yi kat notal nu leen mbàkke yaaman ñépp fopp ndaxam jaaraa ci doomam a jël ndam moom it jërëjëf moo jiitu soxna yi doomam jiitu kuy tubayut ku soxna jaaraa ko gën mboolem ku sol tubayit bambaa ko gën fopp wax gi wér gi dem na dayo yow soxna jaara bégal saw ŋàññi ron na asal yaa jur ki jëm ci boroomam woote ñépp yu góor ak jigéen ak mag ak ndaw koo fu gis mi ngi jag te yaa waral ñépp jag baykata bay nga bayu xamal ne waa penku ak waa sowu ñépp a ngi mos ci sab liggéey yëkka ñëw yow doo ku dee fi moyu daawo warantee ka songantee ka doo di xuloo daawoo bañin ku lay ab daawoo jëwee ka jëyu daawoo lebal kenn ay daawoo waxit lu jubul daawoo ko de bu so jaajëf man danaa la nuyu tey maa ngi lay nuyu nag moo mbaati jàmm nga am doo am lu dul jàmm yaa fab jàmm leb lefa yu yaa jàpp jàmm ku yiwu ak kent teex ko mu sax nga bay ko nag ba mu ñor daagul ci àjjana yi ku def julit war na lay ñaanal ci waxtu wu jot loo bëgg yàlla na nga am d'accord lor yi saranu na ci sa barkey sët yi ak ci yawet mu cëg raw a gudd fan door ak way ak tuba yu saranu na ci sa barkey sët yi ak ci yawet mu cëg raw a gudd fan door ak way ak tuba yu yow Moustapha yàlla ak yoneen ba yàlla nañu xëy na cëpp wàcc fi yow mi wàcce barke fi yow yow Moustapha yàlla ak yoneen ba yàlla nañu xëy na cëpp wàcc fi yow mi wàcce barke fi yow jaaraama jaaraama jaajëf mbàkki yàlla nañu jeñ sëb dikke wàllaa te jëñ sëb dikke wàlla nga raw rafet nga jëf rafetub xol yàlla yàlla na la fay te may la bis la bandab loo am ne del la ku yiw rëy nga fite gite rëy nga xol te rëy nga jëfit rëyub yar ak juddu rëy ndam rëy ngërëm ma te naw tabaarakallaahu yow gimiñ gu bon na la mooy te mooy sa kër mooy sa waa kër mooy julit ñi la aw tabaarakallaahu yow gimiñ gu bon na la mooy te mooy sa kër mooy sa waa kër mooy julit ñi la aw loo sant sant sa baay yàlla dolli ca la xamal na saytu nga may goo xam ne gii du gu sew sewoo sa may gi sewul yow sew le woo te sewoo kuréy kuréy le nga yaa gën ñëpp yaa ne ci kaw nun ñëpp noo di sa néegub cant nga yi sunu puuj moo tax ku nekk di baax baax doo ko baf ngu du ñëw saxal ca kaw faaw mboolem nit ñi yàlla nañu sax bu wér ci say loxo ak seg ron di naata ka lew yaa am te yaanu ca may yaa gën te yaanu gënal yaa man te yaanu manal yaa tax jumaa ji taxaw yaa am te yaanu ca may yaa gën te yaanu gënal yaa man te yaanu manal yaa tax jumaa ji taxaw danaa la wax ndaf lu seddub xol lu fen xesewul sa baay ya ngay bikki yow tey sañ ju xef ku la jëw danaa la wax ndaf lu seddub xol lu fen xesewul sa baay ya ngay bikki yow tey sañ ju xef ku la jëw foo gis ku lay jëwe kay bañ ak ndogal la ne kenn mënul ne yow Moustapha bi leen na manqué ci yow foo gis ku lay jëwe kay bañ ak ndogal la ne kenn mënul ne yow Moustapha mi leen na manqué ci yow Abdul Ahad yàlla na sew fan gudd mbàkke nga wér te sax ci jàmm ku yiw ak jaamu yàlla gu wér Abdul Ahad yàlla na sew fan gudd mbàkke nga wér te sax ci jàmm ku yiw ak jaamu yàlla gu wér farlul te wéy yàlla na ngay far dog bu sedd sa xol te mucc ciw ayakum dog sax ci def la la war farlul te wéy yàlla na ngay far dog bu sedd sa xol te mucc ciw ayakum dog sax ci def la la war toppal sama Moustapha bul génn yow ndigalam ngir mag mu mat mag la mat ñëpp sëriñ te du war jëfal te bul faale nit bul geesu nit ci sa jëf na yàlla tax ngay jëf ak yoneen ba ak kala jur kalay manal dara moo jar def lëf ak bàyyi lëf te koo kanam moo di rabbul arsi yàlla na la yor yar bi nga am yor ko biir ak biti moo di sa kee moo gën ci yow nit ñu baax ak kër yu baax ak ki jur sabaay gën ñëpp te weer dongu dongu daam yoral yaram ba te koo gis dee ko sant ka yar sabaay gën ñëpp ab yar ngir dalay jox a jox ab yar ba ngay ama am ab yar te doo mos yar du yëkkati bi yar di teg nit waaye moo gënu nit ñey teg nit tu yar a kay jànne kay yeewa kalor ni daa yi ndam ñi nga am loo gis ñu am ko ci ndam xamal ne moo ko ca def ji wax ku nekk la bir loo gis ci am sa tu moo mi ci bi yar ak jëfu yiw xamal ne moo ko waral ak cant war na gu tat abdu ak cant war na ci ñoom ak yow gu rëy gu rafet gu day ne bàjjo gu dul yem fenn mukkati far ak cant war na ci ñoom ak yow gu rëy gu rafet gu day ne ba jogudul yem fenn mukkati far loo ji ci am sa tu moom mi ci biir ak jëfu yiw xamal ne moo ko ca def ji wax ku nekk la biir abdu am sa tu ak mbàkkee ki balla asan yow sa ini jaaya ngi ñoo di sarli kenn du ci par faxal te raw am nga ab yóbbal faxal raw a des ngir baaxi bokka di ab yóbbal nañu tëji sar saral te way dëgg bul yem ci ni jaaya ki bàyyi yang ngay di sant ka doyloo seeni cër lu ko jar foo seeru koy foo ko doyloo ab cëram na nga wut loo dolli yow ci sa cër bi ndax nga am cëri cër jollil ci kaw bul fekkee jëm suufa kay waxa dal ci jolli ngay waare am xiibon sa ngay note mbër regaayu jaambur ku koy doyloo ba léegi ku lu xam burub aras kafar ak bër yëpp yàlla na la far yow yàlla na ngay wéye kay jëm kaw di dolli ko ndam ba jiitu waa kaw te nangoo suufe koy amutul abdul ahad yow si yéeney bopp yàlla na la dal loo bëgg yàlla na nga jot loolee te ngab ko bir abdul ahad yow si yéeney bopp yàlla na la dal loo bëgg yàlla na nga am loolee ci kaw sutura xarit bu lay jëriñoo kay lor asal jefewul xarit bu lay may junne kay jariñ jafe na am naa xarit bu ma koy may junni teg ca di ree te naa ma lii bariwul ay biib xarit jafe na ma sàmba mbàkkee na cas ab junni bis ne ma am sëriñ bi yàlla na ko jox loo xam ne lii jafe na sëriñ bi yàlla na ko jox mboolem la dee fi mébét te may ko jiitu gu mboolem nit ñi naaw jafe na yàlla fanam gudd diggante ma kub sëriñam ne naa ñi muy ami mbég yoo xam ne yii jafe na magam je yàlla na ko may loo xam ne lii masu ko may nit ba conseeru naa lii bàcc am jafe na te yàlla na sàmm njabootam dolli seeni ngërëm may leen yitte yu neefaa itte yi jafe na fab naa ko dénk sëriñ Tuubaa magam ja ko yor te yar ko yar bu rafet boo xam ne bii jafe na bàcceeg njabootam seenu cant yàlla na fi sax ñu yokki ñëpp naa bàcceeg ñoñam jafe na komandi woppaka dee nay dund faaw ak wér te am ngërëm nag lu ne faa lii ngërëm jafe na ku nekk yal na ko ñee muy waaju ñëpp di ñee ñu def ko nag mbër mu rëy moo xam ne mii jafe na xolam na sedd suñu xol sedd sedd gu biir nu bokk gën gaañe ne faa seeni kem jafe na xolam na sedd suñuy xol sedd sedd gu biir nu bokk gën gaañe ne faa seeni kem jafe na jafe na ñuy tàkkay leeral ba dootu nu fay jafal gi jàpp nga jox nu jum bu ñuy jafale jafal ñuy tàkk kay leeral ba dootu nu fay jafal gi jàpp nga jox nu jum bu ñuy jafale jafal ñuy jëjëree kay tàkk jolli ca kaw leeral na jant bi leeral lépp foofu dalale naatal nu nuy nef ne fekkay lawti dëkke na tax naatal ci xam yàlla ak yonneen ba foofu matale na diine dund ci nun gaay mi dund ci nun nuy dund faawu ci yow tey man la ñëpp tële xam-xam na dund ci nun waaye xam yi dund ci nun nu dee ci dekkee ci nun tey jàpp kay birale dundal nu fegal nu dee saxal nu ci wér ak dunda kuug dundulee kuug juble ak sufule notal nu nag sunu bopp ak ñëpp not gu rafet nuy toppaloo sunu bopp ak ñëpp yàlla mi le notal nuy bépp noon ak bépp soppe bu wér nuy boole soppee ki bañ ak seeni yëf dajale nangul nu it xaalis bi yéefar yi jox nu ko nuy toppee ka santee ka béglee kay joxee ka dale regg nuy seeni xéewal yépp jox nu ko nag nu mucca faf seeni réew ak seeni pal defale reggil nuy seeni xéewal yépp jox nu ko nag nu mujja faf seeni réew ak seeni pal defale rocc nuy seeni reer ak seeni añ yañ yor jébbal nu saytu nu nuy woo ñépp kay dëdale te barke daw so ci nun wërsëg yi daw so ci nun mucca njëriñ so ci nun nuy jàpp kay jafale te barke daw so ci nun wërsëg yi daw so ci nun mucca njëriñ so ci nun nuy jàpp kay jafale fabal kari kari yoo xam ne feese na ñuy njëriñ dugal ci sunuy kër yokk nooti nu sant la lool fabal kari kari yoo xam ne feese na ñuy njëriñ dugal ci sunuy kër yokk nooti nu sant la lool fabal nitu nit ñoo xam ne ñoo tane seeni kem dugal ci sunu nit waara nooti nu waara lool fabal pali pal yoo xam ne ñoo gëne pal yu rëy dugal ci sunu pal sant nooti nu sant la lool fabal may may yoo xam ne doy na ñoo xalam dugal ci sunuy may dambe loonu nu dambe lool fabal ay barab yoo tànn def ci sunuy barab te jiital nu bii rek biti faw nu jiitu lool fabal jàmmi bii rek biti jox nu ko faw nag te sàmm nu bii rek biti càmm gu yéemu lool fabal ndami ndam yoo xam ne yii rëy na ñoo xalam fabal ndami ndam yoo xam ne yii rëy na ñu xalam dugal ci sunuy ndam nuy gërëm yàlla fawu lool fabal barke ak wërsëg wu noot sunu aajo far dugal ci sunuy jàmm ak sunuy kër nu farlu lool fabal wutal ak yóbbal wu dul jeexatee ku yiw tofal nu ko faw ak jàmm yàlla gu sell lool fabal wutal ak yóbbal bu dul jeexatee ku yiw tufal nu ko faw ak jàmm yàlla gu sell lool fabal lépp lëf loo xam ne am nañu njëriñ ci nit tofal nu ko biir ak biti nuy wéy di soññee lool fabal koomi biir ak biti ak xam-xamum njëriñ tufal nu ko faw ak jëf ju màgg ju tand lool fabal ngërëm ak tawféex ak texe sol ci nun te ubbil nu buntub cant faawu bu tedd lool fabal ngërëm ak tawfiq ak texe sol ci nun te ubbil nu buntub cant faawu bu tedd lool maa ngi liggéeyal man ka liggéeyal yàlla liggéeyal yeneen bu mag ba maa ngi liggéeyal man ka liggéeyal yàlla liggéeyal yeneen bu mag ba ka daane bëree dàq gawar yaa nangu gobar ya ak gobaram ba boole ngoram nga ak njullitam nga ak njaxlafam nga ak xam-xamam ba ak lewatam nga ak woyofam nga ak sawaram nga ànd ak yaram ba moo ndi xar baax moo yore xar baax moo maye xar baax may na ko ñëpp rek ki de war seeg ak barke yor nag ni ngi di may na gaay mi lépp barke yi daw na wërsëg yi daw na mbooloo yi daw na jëm barabam ba xam-xam yi daw na ngërëm yi daw na yiw yëpp daw na tabbi xolam ba jagam xamoo wax ji le ma lay wax ak ki ma lay wax moo di sëriñ ba jagam xamoo wax ji le ma lay wax ak ki ma lay wax moo di sëriñ ba moo di ku xam kaa moo di ku am kaa moo di ku kam ka turwaa di bamba moo di ku xam ka moo di ku am kaa moo di ku gëm ka turuwaa di bamba bëree ka koo xam bëree ka koo gëm yélee na xëy jam jox leen ni kumba nangu nangu tuba yaa nangu fetal yaa ak fasu gor ya jox kuréelam ba nangu tuba ya nangu fetal yaa ak fasu gor ya jox kuréelam ba waroomi daara ak siyeeni daara la doomi jaara di boole jàpp def leen ni jaamam def leen ni doomam ku ne di doomam jotee laram ba fu ne ki dongoom kaa nga ki dongoom buura ki mbooloom la boole sox ba ñëpp na jànjang kenn fa fatul jóg ku ne ne landa ngir jam-jamam ba yàllaa ko may lii moo ko defal lii te doo gërëm lii gërëm dogal ba te jébbuloo des ku ko deful des luy waral lu des nit war na koo ba fab naa samay mbir ak sama waa kër jox ko ko man faf yàlla nu jàpp jox naa ko man mii saa lépp man mii yàllante man mii ma di lalam ba yàllante may fos mu def maaw fos mbaa mu warul fos ma yor jetang ba yàllante buy dem ne ma jógan dem ma topp koy dem yoral ko der ba yàllante man may boppam ba mbaa may dallam ba mbaa may parisolam ba te xasa bum ba te xar kanam ba tey sikkinam ba tey bakkanam ba yàllante sax may tànkam ba mbaa may noppam ba mbaa may far di bëtam ba tey ku ko sopp tey ku mu sopp tey mu di tamba tey xaritam ba yàllante far muy mante manin may moom it nu far xëy booloone ràpp di jenn jëmmu te yaari jëmmu yu bari jàmm te mën a nag ba xam naa ne maa bon xam naa ne moo gën saa su ma nekkul may lar bu jub ba tey lar bu xam ba tey lar bu am baaw tey lar bu man ba tey lar bu gën ba yàllaa ko baaxal yàlla na nu baaxal yàlla nu seexal nun donga yépp yàlla nu may nun jàmm ngërëm ren te suñ déwén gën ren ji la fopp yàlla nu may ak yokkute may nu yokkee te may nu bàyyi ku fépp te may nu it ak farlu te may nu yaru te may nu jébbule lépp te may nu taw féex ak jëfi taw féex ak gaa yi taw féex yu xëy na xëpp andi suñuy mbég ànd ak suñuy mbég di ñu jox yi mbég ak seeni bopp ba ñu liggéeyal bamba liggéeyal yàlla liggéeyal yoneen bu mag ba ba ñu liggéeyal bamba liggéeyal yàlla liggéeyal yoneen bu mag ba jaga woo ma ndam boppam sama sang am na ndam jaga manki naa moo xam sama sang mankiwul jagam aw ma ndam boppam sama sang am na ndam jagam manki naa moo xam sama sang mankiwul jagam tuuti naa moo xam sama sang tuutiwul jagam suufe naa moo xam sama sang suufewul jagam gàlli naa moo xam sama sang gàlliwul bu may sàgganit moo xam sama sang sàgganul jagam jekki naa moo xam sama sang jekkiwul jagam fàtte naa moo xam sama sang fàttewul li lay tax li may bon bon ma xam ne lu man de xew damay mujj gën mbooloo mi jël ndam ñu xëy ma fal ku war ci ca xaaram tey nelaw yi du dee mu raw waral lépp loo bañ ñàkk a war dong koy waral waral ci sa xaarub cant dam ñi la jiitu woon te bul dopp wàccit benn teerub tawat wéyal wéyal yow te bul teeral ci teerub bu dul ndigal ko teeral ci teerub mooy ndigal ñàkk ndam dawal ku bëgg tiraanga ku pala mbir mu jub yéwén na ngay teer ak kay teer ak ci teerub muñ ak ndiwal ku bëgg tiraanga ku pala mbir mu jub yéwén na ngay teer ak kay teer ak ci teerub muñ ak ndigal mu ñag digal lay teerub ñu gëm yàlla néeg fa yow saxaaru nga neel ak barke loo mën a daj muñal saxaaru nga neel ak barke buy ñëw nga dal di bég te am dara jàkku truu siiw ak ndam ak ndawal sa jëf nay rafet lool ak sa njortu nga fas lu rëy di seenu ndam ak loo bëgg sab sang mankiwul sa jëf nay rafet lool ak sa njortu nga fas lu rëy di seenu ndam ak loo bëgg sab sang mankiwul sëriñ mbeeri saa koor ak sama julli faaw man bu ñuy woor ak kay jullee kay wir dama ngëb ko man sëriñ mbeeri saa koor ak sama julli faaw man bu ñuy woor ak kay jullee kay wir dama ngëb ko man te def naa ko muy saa xam-xam ak sama diine it samay solo jëllul bamba yem naa fi moo fi gën sama bari man-man dootu jëm ci lu dul mbiram lu dul jëm ci moom ak mooy la teg mooy farul dagan dama lott ci def lott ci bàyyi moo waral ma jokko samay mbir génn ci doye deeki fen ku lott dafay boole mbiram yépp jokka man mu fab ko defal moo gën di yàq ka def lu bon danaa génne ndaw ak mag ci saa biri bopp yi te tàbbal ci waanew yàlla way réyelub gosen bu jàppee ku bon tey sew ba tol ne ab gosen mu baaxal ko def kow ñëy wu am barke gudd fan bu jàppee ku sew bay saf karan tuuti new felit mu soppi ko ak tukkal guréy guréyub jigéen bu jàppee ku ñuy teggee ka yàqte ab jaram mu def ko jëw mbëg ñëpp xëy di ko faf dagaan bu jàppee ku daa xaaraane ka sol sagar yu bon mu jébbal ko dàggaa kii baraaye mu boole gën bu jàppee ku daa mooy yàlla ak yonenam ba nag mu leeral digganteem ak boroomam ñu far ko tin kilomètre jébbal mbir yi mu yor waane waa ngi nii tengooy naa ci jébbal naa ko saa léppati moo fi man kilomètre jébbal mbir yi mu yor waane waa ngi nii tengooy naa ci jébbal naa ko saa léppati moo fi man man jàpp naa sama xol bii teg fa yàlla bu wér fawa fa mboolem ña koy ma kooka jaamu bu wér njëgam damay jubadee kay sax ci def lu warul xol baa ngi ànd ak ña sax ci jub te sax ca la war njagam damay ku ji séeful muy fanaanee si kar teewub sama xol di ànd ak ñey fanaanee si kar njagam bu guddee ma songob lal ne xammu ca kaw xol baa ngi ànd ak ña dul mos seeni lal ba fajar njagam dama boole mboolem guddi yépp rayit xol baa ngi ànd ak ña dundal seeni guddi bu wér njagam bakkan bi damay notee ka not ak a war xol baa ngi ànd ak ña koy not nos ko jàpp ko war njagam damay waaju ay noonam notit duma tee di soppa kay sant ñey xar boppi noona ki njur njagam damay ku nëbëx koo xam ne ñépp a ko man xol baa ngi ànd ak ña rëy aw fit ñemeñ bari ngor njagam damay waaju sellul sellalul duma tee di sopp ñey sella kay sellal fu nekk defar njagam damay dox di manqué kay tayee la ka des xol baa ngi ànd ak ña mat faj gàcc jiitu sawar njagam damaa ne fi suufit maa ngi soppa kañee mboolem ña nekk ca kaw ñoo tedd ñoo jarajur njagam damaa ne fi suufit maa ngi soppa kañee mboolem ña nekk ca kaw ñoo tedd ñoo jarajur yàlla ca bokk ci baaxug yàlla gënte bu wér te jur ñu bokk ci ñoom ak jàmm gënte bu wér yàlla ñag naa samay kër te naa samay kër te sama waa kër ñëpp saxal njël ñag naa samay kër te naa samay kër te sama waa kër ñëpp saxal njël ku bëgg a jekki nu bokk jekki ku bañ a jekki ma ne ko laggal ku bëgg a tàbbi ma ne ko tàbbil ku bëgg a génn ma ne ko génnal way naa ci yàlla yàlla nu yàlla mayeti walla gu band àndul yàlla nu tàbbal ci lu dalum xel lu sedd cib xol guy yombul yàlla yësam ba ci yësamuk jàkk yësam ngërëm nag ñu rot ñu for jël yàlla nu bàccel garab yi ndimmal yëpp ñu rutil nu lépp ndimmal yàlla fi teeral tiraanga teeral fi barke teeral fi jàmma ku pal yàlla fi teeral tiraanga teeral fi barke teeral fi jàmma ku pal yàlla saxal ndam fi nu lu dul dem tese ji lëndëm fawa ki jaljal yàlla nu buural jëlañ ña buural ñu ji ba buural raadu ba yeggal yàlla nu bayle bu wérte bayle gaa yi nu bayle boole nu nangul yàlla nu ñaanal te ñemu ñaanal bokku nu ñaanal lu mu nu tànnal yàlla nu daanal te ñemu daanal bokku nu daanal fonkali ponkal yàlla na farag nun ñoñam farag nun ñéppam farag nun seral sunuy xol yàlla nu baaxal yàlla nu neexal yàlla nu xeexal yàlla nu dàqal yàlla nu baawal yàlla na ko gaawal moo mën a gaawal buy def du yëgal yàlla na may ab taw yàlla na mayew yiw yàlla na taw yiw ñëw ak lu dal xel yàlla nu yor nun dolli nu kàttan saxal nu cing man saxal fi nun njël yàlla nu yor nun dolli nu kàttan saxal nu cig man saxal fi nun njël yàlla mu cant man goo xam ne gi dana suul cant ku nekk te cantu kenn duutu ko suul yàlla di ab santkat boo xam ne bii dana suul ña sant ñépp te benn cantkat du ko suul kafarle yoowa ba yoowa weene xappitu ñay yàllay farag nun ba nuy not ñépp faawa ka mool kay def ci ñaaru dërëm aslëf ba ñaaru dërëm ñooñee di ay million nun ñépp yàlla na nu xool loolee mu def nag ci xaalis soose yàlla na ko def ci lépp lëf lu nu am un ci alal ak i tool loolee mu def ca xaalis soose yàlla na ko def ci lépp lëf lu nu am ci alal ak i tool nawet bi yàlla na ci barkeb yàlla wàcci bu rëy ak yéen ma ndey bappam ak barkeb xadimu rasool naat bi yàlla na ci cantuk cant fekk ci nun buy tax nu ñeenu ci géppuk wet ci lëf du nu suul ku saytoo xam-xam bi ak sañ-sañ bi yàlla na nu am jubóo gu dul den ci ñoom ak may gu gënta rasool